yéenekaay bi di sàkku ci askan wi ñu daal di takkaat masque yi tribune yéenekaay di ko feelu muy xamle ni kon omicron ci Sénégal ndax am na ci ñaari ko nemmeeku kenn ki ab ndaw la bu toll ci ñaar fukki at ak juróom keneen ka di ab soxna tamit bi nga xamante ne mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom ñett moom ci ab hôtel bu nekk ci Ndakaaru bu yàggul dara lañu ko nemmeeku moo tax yéenekaay bi di laaj ba xam jar naa tiit ngir omicron bi nga xamante ne mooy variant bu bees bi lëmbee àdduna si li am ba am vox populi di xam ni kon omicron mi nga xamante ne ñetti cas la ñu nemmeeku ci Sénégal am na ci ay risques yu am solo ci wàllu réinfection boo ko méngalee ak yeneen variant yi nga xamante ne moom la xamoon boobu ak léegi ak ñetti cas omicron yu ñu nemmeeku ci Sénégal tax na ba l'observateur jàpp ni wërgu-yaram ci boppam ci Sénégal moom moo nekk ci état d'urgence moo tax CNGE war a amal ab ndaje niki tey ji ngir daal di nas ay pexe yi nga xamante ne ci la Sénégal war a sukkandiku ngir daal di koy faagaagal yéene kaay groupe bi dénk kàddu kii di Cheikh Soxna di ab épidémiologiste lu muy xamle ci biir yéenekaay bi mooy kilifa yi ñoo war a jël seen matukaay yi ngir daal di tere bépp ndaje bi nga xamante ne amalul solo askan wi li amal solo kay askan wi moom la forum civil di def bis bu yàlla sàkk moo tax Dakar Times jagleel xëtam bu njëkk kii di Birahim Seck nga xamante ne moo jiite kuréel ga di wax ci li nga xamante ne moom la fëram civil di dox rawatina ci at mi ñu nekk nga xamante ne taxaw na bu baax askan wi ci wàllub ndox mi nga xamante ne ñu bëri ay jafe-jafe lañ ci doon dund jafe-jafe yi askan wi di dund bokk na ci mbalit mu bëri mi la Soleil yéene kay dëkk ci campagne bi nga xamante ne kon moom la njiitu réew mi daal di sóobu mu fas yéene ci jël ay matukaayam ndax mag Macky Sall ci samedi gi sumb na li nga xamante ne moom mooy bisub setal mu sonj jëwru ñoom ji di Abdoulaye Sow ngir mu daal di jëfandikoo ay jumtukaay nga xamante ne UCG moo ko moom waaye tamit bu ko jaree sax way takk der yi ngir fexe ba ndakaaru daal di set nit ñi mën a noyyi bu baax setal Dakar moo tax Macky daal di sumbaat ñaareelub opération ngir xeex mbalit mi ñu duppee ko kon bi sub setal enquête yéene kaay dikkaat ci ci anam yu yaatu waxtaan wu yaatu le Sud Quotidien c'est ak médiateur de la République bu yees bi moom Demba Kandji daal dinay dikkaat ci anam ñi nga xamante ne moom lañ ko fale préfecture de la république nga xamante ne ci namm soppi doxalin bu ko defee mu gën a jege askan wi wax na tamit liggéey bi nga xamante ne def na ko ba muy nekk àttekat dossier yu métti bu ci mel ni Khalifa Babacar Sall ak yeneen wax na tamit tolluwaayub yoon nga xamante ne ñu bëri dañu koy ŋàññi ci Sénégal Aliou Sall mi opposition bi di ŋàññ doxalinam ci géejawaay daal dinay wone boppam ci Le Quotidien yéenekaay moom rakku njiitu réew mi Macky Sall wax na ana lan moo tax léegi moom géejawaay ku jóg rek bëgg nekk candidat waaye moom Aliou Sall ci boppam jàpp na ni du yomb ngir jële ko fa ndax lu bëri ci li mu mbëbët ngir askan wi naka noone diwaan ba des na te war na ko yeggali Adama Barrow dina yeggali mbëbëtam ci boppu réewub Gambie réew mi quotidien dikk ak ñun ci élection présidentielle bi doon xew ni ki samedi gi ca Gambie wax ni bu ñu sukkandekoo ci résultat yi nga xamante ne commission bi fësal na ko moom Adama Barrow moom la ñu jàpp ni kon moo jël ndam li ci boobule élection suñu naataango yu groupe réew na lu ëpp ñeenti téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom ñett ni xop jiitu bu a xamante ne moom mooy Ousseynou Dabo mi nekk ci ñaareelu place bi yooyu les statistiques l'observateur di ko dëggal yéene bi di xam ne ni kon Adama Barrow falaat nañ ko juróomi at yi nga xamante ne dina ko toogaat ci boppu réew Gambie ndax ndam lu rëy li nga xamante ne jël na ko ci élection présidentielle yi ndam amul diggante Siteu ak Papa Sow combat bi ñu waroon a amal niki démb ci arène nationale mujjuta antu yéene bi di bis bi di xam ni kon verdict amu ca sax ñàkk verdict bi li ko waral mooy Papa Sow mi nga xamante ne ab tama la ñu jël daal di koy dóor ci bopp bi yéenekaay bi duppee ko sax ab combat bi nga xamante ne combat wu gàcce la Siteu jël ci ay kàddu jam ci baramu tuuma mi mu jàpp ni kon moo daal di gaañul boppam Edouard Mendy amul gaañu gaañu waaye jongante bu métti la dund diggante Chelsea ak westam Ham gardien de but bu suñu gayndey ñetti but la ci encaissé bokk na ci ab penalty bi nga xamante ne daanaka moom moo ko sooxee moo tax stade yéenekaay